salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu amaat kontaane dajeeg yéen fi nga xamante ni moo di ci Equivox TV ngir seen émission bii di ganu Equivox tey nag ñuy dalal ko xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ci wàllu mouvement culturel yi mu nekk parce que artiste la engagé même bokk yi tamit ci mouvement Y'en a marre moo di Simon Kouka bi nga xam ne tey moom la ñuy dalal ci Equivox TV ñu bàyyi ko mu nuyoo génn laata ñuy euh, jàll ci waxtaan bi Simon ñu ngi lay ziar di si kër gi. waaw di leen yàlla na yàlla nangu ziar di bi. Mm-hmm. di nuyu internet yëpp yu ñuy suivre. Mm-hmm. merci beaucoup alors lu ñu bëgg a waxtaanee bokk na si wàllum actualité fii réew mi toll moo fan yi gis nañ ndaw yi jug Sénégal. am na sax ñu ko tuddee les émeutes de la faim parce que gis nañ euh, ni yëf yi toll ci grande surface yi ñu doon attaqué attaqué ak yooyu yëpp tey boo ñu doon defal bilan bilan manifestation yi parce que ay témoins oculaires ngeen yàgg ngeen ko gis ci Sénégal depuis 2012 gis nañ leen si déjà ak euh, mouvement bii di Y'en a marre ngeen taxawal ko ci at woowu. Mhm. ak i tamit fi réew mi toll nii noo ko jàngatee en tant que déjà benn citoyen mais aussi tam ku ñu miin loolu ci wàllu euh, engagement citoyen. waaw ko waxee. Mhm. émeute c'est vrai que waa émeute dañuy naxarlu ah dañuy naxarlu mhm. kaas yi mhm. dañuy naxarlu yenn dégâts yi jot a am mhm. mais surtout di profiter tamit di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen ay doom ñi seen ay rakk ñi seen ay mag parce que mën nañ ne Sénégal waaw yelloowul lii te méritéwul lii daal lecture bi mooy xam nga ay frustration ak ay mer yu yàgg dajaloo. Mhm. ci ay ndaw. Mhm. ku ci nekk ak ni nga koy exprimer ñii dañuy bind woy mhm. ñii dañuy bind article. ñii dañuy ñëw taxaw présenter. ñii dañuy marche pacifiquement. ñeneen dañuy yàq. ba tamit ci genre mouvement yooyu. à chaque fois da ngay gis tamit ay samba booy ay defkatu ñaawteef. dañ ci dugg. ay nerveux yooyu voilà di profito. di def. Euh, du n'importe quoi. Mhm. mais faut juste le mettre ci compte ay frustration yu dajaloo. Mhm. mu am benn goutte nag bu ñëw. débordeloo vase bi. Mhm. ñu gis ne démocratie bi ñu ngi koy salfaajee. ñu gis ne euh, ñi ñu jiite. am benn arrogance bu ñuy waxee ci plateau yi télé yi. am benn condescendance. boo xam ne dañ ko am envers ñi leen fal. envers ñi tax ñoom ñuy lekk ñuy naan di fay seen ay courant ak seen ay étudiants. et population yi gis na tamit ñii dañ leen xaw a beddi. beddi manqué leen respect. Euh, ñàkk leen jox considération. ay jeunes yoo xam ne saa su bu ñu taalee télé wala dugg ci siti di dégg ay milliards dugal nañ ko ci sangam ay milliards dugal nañ ko ci sangam. alors que jeunes yooyu ñoom duñ ci gis seen bopp ni en formation. ni en subvention ni ci lu mu doon. Mhm. donc bu ñuy gis ne tamit boo duggee ci politique surtout nga nekk ci benn koñ waa ji day nekk ci politique même pas six mois un an tabax yokk kër gi tabax ay étage di gaare façon oto bu nekk changé alors que ñoom ñoo ngi fi di baana baana di jaay di taxalee seen ay parent di lal ay table ci bopp koñ bi pour jaay ay sandwich pour génn ci. Euh, seen ay pas di dem ci géej gi walla waaw géej gi apporté wul tout comme avant wala njaay bi apporté wul comme avant frustration yooyu noonu di dajaloo di dajaloo plus bu ñuy gis condescendance boobu ak tamit corona bi ñëw ñu def ay décrété ay couvre-feu heure yi nga xam ne seen ay yaay seen ay sœurs yi doon jaayantu di fortaatu astu di ko indi ci kër gi sax loolu amatul donc frustration yooyu noonu yëpp la ñu gis ci lu ci lu xew fan yi fan fan yi nii quoi. Mhm. Euh, ci loolu sax njiitum réew mi bu mu génnee di jàkkaarloog askan wi moom nee na comprendre na leen pour dire que ni frustration yi nga jot a wax moom nee na mu ngi ci bàyyi xel déjà annonce boobu mu def euh, reconnaître que ni quelque part am na lu doxlu yéen bi ngeen ko saytoo ba noppi naka ngeen ko jàngatee ak solution yi mu wax ni surtout dina ko apporter ci wàllu xëyu ndaw yi yéen naka ngeen euh, jàngatee situation boobu. ñu ngi xaar xam nga njiitu réew boo xam ne. dafa yàgg wax te wax yooyu après kenn du ko gis parce que bu ñu gisee malgré wax googu discours boobu après ëllëg sa wala deux jours après ñu gis mu continuer am ay trac waxuma ay sambaaboo yoo xam ne ay defkat lañu mais ay trac ci ñoo xam ne dañu participer ci ay manifestations méngoowul ak waxu apaisement boobu quoi bu ñu gisee ba tey euh, mu am ñoo xam ne ci manifestation yi ñu ngi en prison. muy ñoom Guy Marius Sagna. Mhm. mooy ñi nga xam ne ñu ngi doon manifester. tamit ñoom Clédor Sène. ñoom Clédor Sène Assane Diouf ñoom. Biram Souley ay Abbas Fall. ak mhm. plus les moins connus. Mhm. parce que bëri na ñoo xam ne kenn xamu leen. léegi nii rek maa ngi doon waxtaan sa benn copain <coughs> wantit may naan cousin am boobu ba tey mu ngi ci kaso bi. donc kenn xamu ko. donc la moindre de choses moo doon. bon dégg nañu ne nag am na benn action bu gars yi entreprendre. et que dinañ leen bàyyi ci ay fan yu néew. mais li gënoon rafet mooy. climat d'apaisement bi aussitôt joindre l'acte à la parole libérer ñooñu parce que mën nañ ko et que ñu xoolaat un nekkaat ci problème mu sénégalais yi pas problème mu Sénégal ay ndaw parti mhm. parce que gis nañ fi ay financement yu bëri comme nu ko président waxee bu amee mhm. euh, plus ndaw parti yi ñoo si mhm. bénéficier du am suite aussi waaw du am suivi bi day des bi war e ñaan nañu loolu Sénégal parce qu'il y a de vrais ku foog ne li xew fan yii nii ay problème politique la mhm. wala ay problème accusation de viol la non c'est plus profond que sa et lu gën a graaw li amoon sax mën na amaat booy am lecture tuuti di fréquenter un peu mbedd mi di fréquenter un peu jeunes yi mhm. ngay xam ne la frustration elle est vraiment la mhm. et elle vraiment waaw ancrée et profonde quoi donc euh, il faut que ñu am lecture bu baax tamit di déglu tamit seen ay askan quoi. Mhm. Euh, ci loolu sa solution yi nga wax noonu euh, moom jot na jël benn euh, benn benn somme bu toll si trois cent cinquante milliards moom président de la république wax ni ndaw yi la koy accompagner séddale bi déjà parce que nee nañ si diiru ñetti at lañ koy séddale. ak façon bi ñu koy doxee jotoon nañ fi gis ay projets yu ñu tegoon ay initiative yoo xam ne dañuy dañuy accompagner ndaw yi et tout ça mais suivi bi souvent dafay des est-ce que cette fois-ci 350 milliards yooyu est-ce que mun na apporter vraiment solution par rapport ak euh, jafe-jafe yi ndaw yi nekkee. bon loolu il faut bàyyi peut-être les experts yi nga xam ne ils sont experts en économie parce que bon on n'est pas censé tout connaître aussi quoi expert en économie ñun lenn rek lu ñu mën a xool mooy lu ñu mën a gis di ko gis chaque jour. mooy y a pas d'impact direct auprès de la jeunesse wala information bi du yegsi si ñoom wala peut-être ñoom nu ñu koy defee ah ci côté yi ñu koy accès c'est pas forcément euh, jeunesse bi côté boobu noonu la ñu féetoo wala côté boobu noonu la ñu la ñu la seen ay projet nekk donc je crois qu'il faut vraiment une commission inclusive di gën a wax tamit ak ak nit yi di gën a wax ak jeunes yi di gën a parce que tu peux pas prendre tey pour des problèmes de jeunes tu prends des gens qui ne sont pas ki qui ne connaissent pas la réalité des jeunes nga ne ñoom ngay dénk ñuy piloter ay loo xam ne c'est censé aller vers les jeunes je crois que il faut que jeunes yi tamit ñu jox leen seen seen seen seen seen cër hmm. à 100 pour cent di leen gën a impliqué mais ñoom it ñu xam ne lii ñoo ko moom c'est pas que de la politique hmm. ñu jóg dugg si et puis jouer si seen rôle à à à 100 pour cent hmm. noo gisee jeunesse su Sénégal parce que bi affaire bi amee dañu gis vraiment benn benn benn jeunesse bu fippu jug taxaw pour wax ni ki ñoom ñooy décider maintenant seen bopp boo gisee loolu fekk yéen en 2012 nekkoon ngeen fii ngeen mënee daanaka le même combat ak régime bi fi nekkoon tey bu Simon toogee ba gis ni am na yeneen. Simon yeneen yeneen kii mhm. ngeen nekk fii. dafa mel ni en 2021 nekkuñu fi. waaw mais parce que tamit position dinaa si ñëw position yaa yaa naa maar ci ci taxawaay bi tamit euh, vraiment euh, xawoon na des. ah bon ah si parce que ñin ñi réclamé nañ leen lu yàgg ñu soog a gis ni si ngeen doog a génn wax lan moo waral stratégie boobu. man gisuma ne dañu réclamer y en a marre dès que bu affaire yu amee def na benn communiqué. mais est-ce que communiqué dong doyoon na si. wax ne bon ku ci nga gisee ah. non parce que y a tamit dañ leen xamoon ci jël yëf yi ak sérieux quoi taxaw bañ et tout ça. ci côté société civile waaw mais parce que même Simon sax léegi bi ñu gis dafa calme vraiment cool nii mais est-ce que est-ce que Simon boo bi fi nekkoon 2012 moo fi nekkaat ba tey tamit. mais da ngay fàtte ne Simon bi fi nekkoon 2012 il avait 32 ans. <laughs> Simon bi fi nekk tey la 42 ans. ok su ma meloon ni 2012 loolu est-ce que ça me valorise est-ce que sama cër la. amee ah, mais ba tey war na fi principe yi war nañ fi nekk quand xam nga lan moo am solo. Mm-hmm. mooy ba tey yaa ngi nii di ma invité soo ma invité invité woo ma parce que dama tëdd sama kër di nelaw di yeewu. c'est ça c'est parce que dama bokk ci benn mouvement. Mm-hmm. bu bu participer bu am action bu mu def. Mm-hmm. xam nga il faut que nit yi xam affaire bi du xëbër nga boo gisee nit. en deux mille il muy wax de la même manière. Mhm. di comporter wu de la même manière taxaw fi mu taxawoon kooku il a pas évolué il a pas. màggul quoi màggul. et je crois que ne jamono ji peut-être mënu leen mënu leen xam au fait parce que c'est différent xam nga Simon peut-être bu avant su soxla woon dara day jóg takk ay dàllam dem lijjanti ko. y avait la fougue quoi. non non day takk ay dàllam dem lijjanti ko parce que foofu la tolloon. mais dix ans après peut-être il a les su soxlaa dara bu jëlee benn appel wala benn message da si jot alors que avant da doon dem def le pied de grue moom la ñuy wax peut-être je sais pas expérience wala mhm. donc c'est très important mais li ma la mën a xamal mooy amul dara lu ma sa soxal sénégalais yi loo xam ne Y naa a marre jiituwu ci ba ci bii le cinq kan moo ko teg le cinq Y'en a moo ko woote. Mhm. te pourtant bi mu koy woote ñu bëri ñu ngi doon critiquer non dafa sori na ñu jóg léegi mais après dañu gis ne toutes les dynamiques dañu ñëw vers la 5 boobu ñun ñoo xam qu'est-ce qu'il fallait mettre en place ñan lañu waxoon waroon rassembler. da ngeen soppi doxalin. pour que le cinq du soppi doxalin xam nga tey booy xeex ak ñoo xam ne. Mhm. avant ci yow la ñu bokkoon bul fàtte 2011 ñii di jiite ñu si bëri si ñoom. dañu doon participer ak leen ngeen war boo ma nee on les rappelle pas à parce que war ngeen war ngeen leen war ngeen leen mën a mën a fàttali ki yéen démb bi ngeen nekkee si mbedd mi ba ñu gis président Moustapha Niass mu yore xeer. bi yoon waroon na mun a am beneen mentalité ak beneen taxawaay boo xamante ni Y'en a marre bu jugee rek automatiquement jàmm dina mun a am. xam nga du lépp la ñu mën a wax. Mhm. li ma lay expliquer mooy. mais Simon foog ñu wax parce que tamit sénégalais yi. li ma lay sénégalais am na fu ñu teg yenn ma baal ma dem au bout de ma réflexion rek je crois qu'on euh, yi ñu mën ko am à temps tamit parce que tey bu fekkee sénégalais yi. Mhm. vraiment gis nañ benn mouvement Y'en a marre boo xamante ne dañu wax sandi esprit la. et am na taxawaay bi mu fi am gis nañ ci ay slogan yu ngeen ko doxal ci nouveau type de sénégalais et tout ça mais Y en boobu nga xamante ni par exemple ay at si ginnaaw 2012 daan nañ def sax ay production musicale dañ génne ay son gis nañ ko ci faut pas forcer et tout ça ren gisuñu loolu tamit il faut que l'on se pose les les questions. mais gis nga ay petit frère di ko def. waaw petit frère yi koy def moom laa wax ma ni tey même bu fekkee def nañ koy tamit lan moo si war a nekk taxawaay Y en a marre joxe conseil. mais en 2012 il y avait des frères yu ko doon def en même temps te bokk ñu woon Y'en a marre. comme nit dof. tey ni ni ay jeunesse bi nouvelle génération bi jëlee tey di euh, di dénoncer à travers seeni ay son. Mhm. nga ni ma encadré ngeen si war a def yéen a marre. Mhm. en 2012 nit dof def na la même chose te nekkul woon Y'en a le rapport parce que dama la laaj ni la. parce que nit dof def na xumaan euh, euh, def na awadi def na ñeneen ak ñeneen def nañ. xam nga au fait c'est quoi le plus important. Mm-hmm. le plus important da nga wax sànq sa wax Y'en a esprit la. oui. le plus important je crois que c'est d'inspirer des dynamiques. Mm -hmm. en 2011 ni mouvement yi bëree jamono ji bëreewuloon en 2011. c'est vrai ñu ñuy woowee activiste j'aime même pas ce terme. Mm -hmm. mais en 2011 amul woon mais jamono ji ni mu bëri waxuma la sax Sénégal un peu partout en Afrique et ñi ci gën a sérieux ak gën a honnête lay laaj. nañ la ne ah bokk nañ ci ñi inspiré euh, truc tey yaa ngi cité ñu bëri yaa ngi wax nouvelle génération yaa ngi cité ay nit dof mm-hmm. Mm-hmm. koo ci laajte relation am ak Y'en a marre mm-hmm. wala respect bu mu am ci Y'en da koy crier haut et parce que xam nañ ce qu'on pèse dans l'échiquier xam nga sànq dama doon dama la ne ñi fi toog avant ñoo doon toog ak ñoom di wax stratégie di wax nii la ñuy defee nii la ñuy defee nii la ñuy defee boo xoolee bi ñu defee aar ah. li ñu bokk ak ñeneen mouvement. Hmm. lépp lu ñu doon entamé. Hmm. ñoom dañu fa doon jiitu taxaw. ñoo lànk lépp lu ñu doon entamé ñoom dañu fa doon jiitu taxaw il fallait jamono ji nag changer de stratégie xam nga dangay ngay xaar Simon fii mu ngi fële. kon mooy soppi doxalin bi doon wax. ngay xaar caat fii mu ngi fële. sa s'appelle de la stratégie xam nga tey xeex la ñu nekk te ci xeex boo xam ne ñu bëri ils peuvent même pas impacter xam nga ñun dañu di ñoo xam ne saa yoo yeewoo. su genre yi amee da ngay fekk ay renseignements généraux su bunti kër ñiy déguisé wu en dof ñiy déguisé wu en jaaykatu caaf yow ak ñu bëri ci ñuy seetaan amuñu loolu tu es ton téléphone te mo tes moindres faits fi ngay fréquenté ak feneen ak feneen donc gis nga loolu boo ko xamee il faut nga changer doxalin. kon loolu la leen tiital. suñu tiital loon du ma taxaw fii di ko wax xam nga c'est pas j'ai l'impression que ne. Hmm. da ngeen bëgg a jàppee affaire yi ay affaire de guerrier. non du affaire de guerrier non du affaire de saa waay xam nga 98. Hmm. laa def ba yàlla ba yàlla benn wicked caw moo ko. on se rappelle bi 98 je crois que ko boo leen jamono jooju 99 ñuy ñëw di jouer université waa dikk di ñu dàq ji naan du ñu yéeg ci scène bi donc ku commencé dund genre pression yooyu 98 tax na sax ba métadia. après ay parents tëbal ko mu dem euh, vivre États-Unis parce que les appels les pressions étaient énormes ba ci ñun suñu ay papa les pressions étaient énormes yeneen ak yeneen donc ku commencé dund loolu 98 ba tey 2021 du ay affaire de fit wala ay affaire de guerrier mais xam nga c'est affaire de lan affaire de atteindre ton objectif gis nga bëri na ñuy lu ñu gis ci jamono yi ils ont l'impression que c'est désordonné ça va dans tous les sens alors que c'était une stratégie parce que parenage la ñu commencé artu ne leen ñii fu ñu jëmalee baaxul bien avant parrainage un an Macky bi mu defee un an un an après d'anniversaire Y'en a marre a moo fi njëkk taxaw ne dige boor la gor ca wax ji gars dafa teel may leen ko parce que waaw régime bi fi nekkoon dégâts yu mu def ñu ne non ñii fu ñu jëm neexul. Euh, teel ngeen alerte référendum ñëw. Mhm. ñu ñu battre campagne pour le non. en 2016. dégg ci lu ne. Mhm. Euh, parrainage ñëw législative yeeg yooyu. en 2016 parrainage ñëw sama buntu kër la nekkoon ku génn sama buntu kër ñu ne la ràpp ci kaso bi. toutes ces stratégies là il a fallu benn moment ñu toog ñu ne qu'est-ce qui se passe lu à chaque fois qu'on veut faire quelque chose gars yi jiituñu fa. et après nga commencé lal yeneen stratégie xam nga l'objectif c'est quoi c'est d'atteindre ton but et je crois que jamono ji avec que ça soit avec des plateformes comme le m d et toutes ces personnes qui se sont battues en interne mu am ñu fës am ñoo xam ne fësuñu sax kenn xamu leen c'est l'occasion de remercier ay ñu mel ni ay docteur Diallo Diop doo leen gis ci plateau doo leen dégg fenn mais qui participe énormément à la réflexion ak yeneen ak yeneen yeneen au moins les gens ont atteint leur but et tu posais une question ne noo gisee jeunesse bi c'est c'est l'occasion parce que jeunesse bi on voit que le côté négatif casse loolu yëpp ñu ngi koy ñaaw lu yàgg nañ ko wax mais on il faut être fier de cette jeunesse parce que bu teel am tamit cet euh, esprit démocratique cet engagement citoyen là parce que da ngay dégg yenn saa yi jeunesse bi di la naan suñu démocratie kenn du ko salfaadee on va pas marcher sur notre démocratie di tenir vraiment am benn engagement boo xam ne wan nañ ko firndeel nañ ko am na ñoo xam ne peut-être ci sànni xeer la ñeneen ci ay plateau ñeneen ci ay réflexion et cetera mais tout ça c'est un ensemble et l'essentiel c'était de dire à ce gouvernement là arrêtez votre condescendance arrêtez seen puukare bi ngeen nekkee di xoolee nit yi ci benn piédestal non on va pas vous laisser faire parce que bien avant vous notre pays dafa connaître démocratie et des gens se sont battus pour cette démocratie là et il fallait lancer ce message là parce que ñoom jàppoon nañu ne fii kenn du yëngal dégg nga sax benn député bu toog ci plateau kenn du yëngal kenn du génne parce que dañu demoon man yàggul rek maa ngi doon waxtaan ak benn conseiller président moo koy naan le pays va mal faites attention mu naan non au contraire c'est que la alors que yow mi nga xam ne chaque jour yaa ngi en contact ak ndaw ñi di dajeex ñoom di waxtaan di leen wàcce mais ñun yenn saa yi sax jeunes yi traité ñu de de ragal. parce que am na lu ñu bëgg a def ñu ne leen non gars yi lii bokkul ci xeex bi. Ah, parce que tamit justement am na sax ñu jàpp ni am na sax jàpp ni Y'en a marre aussi itam euh, mu adapté tey si doom ko nangul xam naa ni lu mu adapté tey si wàllu position ñenn sa jàpp nañ ni dañ leen corrompre. waaw ku nekk ak sa xalaat xam nga bu mouvement bi juddoo la ñu jàppee ne dañu corrompre bu mouvement bi juddoo nga dégg ne wooye à l'époque il disait Gadio moo nekk suñu ginnaaw après on a dit Karim Wade moo nekk suñu ginnaaw après on a dit Lamine Diack moo nekk suñu ginnaaw après on a dit jusqu'à présent lii nii on le dira mais xam nga lan moo am solo on est là droit dans notre botte di continuer di mener ay combat ceux qui peuvent lire entre les lignes et qui ont un certain degré d'intelligence ils savent ce que pèse ce mouvement ah te xam nga lan moo si xam nga xam nga maintenant ci lan parce que mhm. am na ñu naan ay mag dañ leen di financer ay dañuy ay dañuy financer kan moo ñuy financer parce que tey bu dee Macky Sall mais on est on est virulent envers Macky Sall tey musoo dégg Y'en a marre mener benn campagne wala benn projet qui va à l'encontre de nos réalité socio-culturelles amul doo gis Y'en a marre wax la lu dul ay doxar sa gox démarche participative allez vous inscrire sur les listes électorales ça va loolu est-ce que c'est mauvais pour le Sénégal ou c'est bon pour le Sénégal waxaat sa député waxaat sa maire suñu gox dem fekk ay association financé leen. non c'est que da ngeen ay ay ay set set ay setal créer lu mel ni Equinox Equivox TV. Mhm. créer ay LTC xam nga donner la parole à des gens qui n'ont pas la parole dans certaines chaînes et cetera et cetera le mouvement est-ce que mës nga ko gis ci soo ci loo xam ne ça va à l'encontre de nos réalités socio-culturelles. non loolu gis nañu résultat yi déjà. bu ñu demee géejewaay bu ñu demee géejewaay non gis nañ ko. mais c'est bien de le rappeler ça on le témoigne aussi. gis nañ ko gis nañ bien de le rappeler parce que des des fois da ngay dégg nit yi di wax même man ah man mi bokk ci mouvement bi damay am ay doute damay ne waa mais gars yi ñoom lu ñuy wax ne lan la mais ñun est-ce que dañu mës a def loo xam ne peut-être euh, je sais pas parce que bu ñu demee tey ba ay kilifa diine di yóbbante ci yow pour ngeen ñëw waxtaan. ay ay ñu mais ñu mag di la jox ay conseil ci ci ci réew mi ak ci bitim réew ak leneen ak leneen tey ngay participer ci ay joxe ay bourse pour que ndaw ñi dem jàngi damay toog ne mais ñun ñun dañu ñun dañu mës a def marche pour euh, non c'est que dañ leen minoon ci casse tamit ci ñaxtu quoi étant rappeur engagé aussi xam nga xam nga parce que parce que Y'en a marre est majoritairement aussi tam occupé par des artistes c'est ça aussi c'est mais c'est bon tey bi fekkee ñiy def graffiti ñu ngi si les rapport ñu ngi si majoritairement. gis nañ si Foukenkook gis nañ si Simon gis nañ. mais mais am na tamit ñoo xamante ni si culture lañ nekk ba tey des gens comme Fadel Barro. Fadel Barro mais de toute façon am na aspect culturel bu muy incarner même si son port vestimentaire. non formation. Aliou mais mais miin nañ leen miin nañ leen si dénonciation ba tax tey su ngeen amee changement de paradigme bi tamit foog ñit ñi mu jaaxal leen encore une fois. kon nekkatuñu ci ah mais parce que position bi ngeen adopté c'est dañu gis beneen Y'en a marre bu gën a màgg Y'en a marre bu mais tey aussi itam bu fekkee ne. xadar ba fi nekkatu leen ay booy. xam nga le premier discours de Y'en a marre lan la. le premier discours de Y'en a maa ko lire c'était Y'en a marre de nous-mêmes laxiste décider bàyyi le champ politique aux aînés la premier action fort bi Y'en a def journalistes yi nekk fii Sénégal ak international yépp saluer ko xam nga moo doon lan mooy après suñu manifestation ñu ne gars yi. place mhm. bii nii. oui lépp fu mu nekk sëggal leen ñu fa. avec le concept de NTS. mais loolu lan moo ko gën a. Mhm. maanaam explicite pour wane ne au-delà de la contestation Y en dafa ñëw ak leneen dara gënu ko explicite xam nga Y a marre lan la tey mooy tey boo fi invité woon Thiat du c'est pas le style de Simon du waxee ni man xam nga ne Thiat c'est un va vëj vëj vëj. am na ñu mu neex am na ñu mu neexul tey boo invité woon Malal Malal il a style dina wax lu muy wax jàllale ko yenn saa ci lu reetaan lu ci lu mais il est tu kilifa Fadel dafa am silam Simon dafa am silam keneen c'est ça la force de Y'en a marre tey c'est nous que tu ay Fadel ay Ndo Aliou ay Malal ay Simon ay Thiat ay kilifa mais dafa am nekk ci ginnaaw ils sont majoritaires surtout les étudiants ay ñoom Khafor ñoom Omar nga xam ne tey ñoom ñooy vraiment sax moteur yu Y en a marre le travail ci ñun mascotte rek la ñu ah parce que ñun la ñu xam ñooy ñëw taxaw fii di wax mais ñoom ñooy liggéey ci suuf ñoo gën a nombre téeméeri junne yoon ay fukken cook yi ngay gis ay simon yi ngay gis ak yeneen ak yeneen mais il faut juste comprendre que ne tamit le mouvement prend de l'âge et mouvement bi ce n'est pas que de la contestation c'est aussi de la participation. non gis nañ ko avec la réinsertion sociale gis nañ ko ci ji hip hop hip hop bi bi ngi nekk géejawaay géejawaay hip hop avec Malal et tout ça on a vu que gis ngeen ay ay jeunes yu nekkoon ci prison bi mu ñu génnee ñu yóbbu leen ci wàllu euh, tout ce qui est euh, plante et tout gis nañ ko ci graffiting bi mur yi doon tuur ndox ba mu yàqu ngeen defaraat ko ça loolu gis nañ ko mais tamit. côté bu ne pas loolu. non c'est social ça ça ça non si c'est une réponse positive même. c'est une réponse man xam nga ban impression la j'ai une impression que les Sénégalais ñoom lenn rek la ñu bëgg a gis ci Y'en dem nañu marche dóor nañu caat. non non tëj nañu Fadel Barro euh, euh, gaañ nañu Fou Malade blessé nañu Simon pour ñoom loolu kese mooy Y'en a mais le départ dafa mel loolu ngeen tàmbaloon Sénégalais yi tamit. déedéet man la koy wax léegi ba nga may wax NTS. Mhm. li ñu tàmbaloon Sénégalais mooy boo ñëwee ci place mooy mooy ay ay. un mhm. coin de rue une poubelle. ay boo ñëwee ci place def truc commencer par le l'hymne national avant 2011 c'était rare ngay gis ay manifestation di commencer hymne national c'était très rare mhm. ñun loolu la ñu indi il faut loolu tamit le reconnaître au mouvement mais ci wàllum contestation tamit on fait ce qu'on a à gis nga jamono ji avant tu faisais un morceau mu am impact si mais déggoo mën na la jamono ji avec ce téléphone tu fais tellement de dégâts et tu t'en rends même pas compte ci ay link ci ay boole ay nit ci ay di wax diw yéen a nekk ci gox bi booy dajaloo leen waxtaan leen créer leen benn stratégie booy yéen a nekk dëkk bi ok am na tamit dëkk bi ku tudd diw numéroom diw dem leen ngeen waxtaan et cetera et cetera et cetera et xoolal nga toog fi nga toog tu vois le résultat ngay reetaan. est-ce que loolu seen rôle la tamit. suñu rôle kan moo koy définir dafa c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne ñoo war a taxaw ne Y'en a marre ñun dafa am ku ñu taxaw ne ñu créer leen Y'en a daxee leen nii daxee leen ne non on a de compte personne on n'est on n'est pas euh, on on n'a pas été élu. est-ce que loolu tax kon ngeen li ngeen approche bi ngeen jël ni mu xaw a niroog politique lool. tout est politique mon frère. finalement da ngeen doon bañ au début wax ni ngeen anti politique ngeen tout ça quoi. politique politicienne lañ doon bañ mais on a toujours dit que tout est politique association sax politique la. nit ay nit dajaloo ça veut dire quoi la politique ça signifie quoi. tout est politique. d'accord on fait des actions qui ont un impact politique. pour Fallou. pour nekk maire wala ministre wala député wala et cetera. kon si moo xalaatul nekk président Sénégal. man de nekkul sama xel wax dëgg fa yàlla. mais moom député. nekkul nekkul sama xel jamono jii nii may wax nekkul sama xel. amul kenn si yéen ku xaw xalaata sax ëllëg. nekk maire si am na ñu si waxtaan jëmale mais dama la ne jamono ji mm-hmm. man de nekkul sama xel te ñi ma gis nii tamit nekkul seen xel. maintenant on sait pas de quoi sera fait demain mais il faut jamais se l' essentiel xam nga lan moo am importance mooy. keroog dafa am ku ko wax ku ma te j'ai retenu cette phrase maa ngi koy wax temps yëpp ci plateau yu may def mooy Y'en a marre fait partie des rares mouvements wala de rares ñi ñiy waxal Y'en fo marre font partie des rares gens yoo xam ne mënoo leen vaar lu ñu doon wax 2011 peut-être avant dañ ko doon wax avec une certaine virulence léegi gën na dal mais c'est la même chose on est sur des combats de principe bi ñu ñëwee quand il y a eu l'histoire de Sonko on est venu dire c'est pas normal que un député soit élu au suffrage universel ñuy bafouer ay droit am alors que laliwuñu malaanu kiraayam ci foofu la ñu taxaw c'est un recul démocratique ci foofu la ñu taxaw defuñu ko pour les beaux yeux de monsieur Ousmane Sonko wala le parti Pastef on le fait parce que c'est un combat de principe. d'accord ci combat de principe boobu noonu la ñu nekkoon 2011 ci nga ñuy fekk et pourtant des gens ont changé parce que en 2011 y avait des gens qui nous critiquaient tey ils viennent nous cons nous consulter après 2011 y ñi la doon critiquer dëmb tey am na ñoo siy gis tey ñu lay ñuy rafetlu sa sa doxalin pourquoi c'est eux qui changent nous on est toujours sur notre lancée. léegi Simon naka la gisee euh, la nouvelle génération d'artistes sénégalais surtout les rappeurs gis nañ fan yi euh, que ça soit Dip que ça soit Ngaka Blindé que ça soit grand yi sax gis ne leen ay ñoom euh, Sir Jamal y a aussi. Euh, yeneen jeune en tout cas yoo xamante ni def nañ ay ay ay yu bari pour dénoncer Canabasse et tout sa noo gisee euh, seen seen prise de position bi ci atum 2021 mi nga xam te ñu bëri jàppoon nañ sax rap bi fi nekk tey ce n'est plus le rap de 98 ce n'est plus le rap de 2006 et tout ça ak dénonciation bi et tout ça euh, naka gisee la nouvelle position no cette position même de de la nouvelle génération. waaw c'est pas voilà j'avais envie de dire c'est pas nouveau peut-être du lu ñu fësaloon ci ñoom. et peut-être mais booy ils sont beaucoup plus fashion tamit. waaw déggoo loo tax ma ne la peut-être lu ñu fësaloon. Hmm. mais koo si gis koo si jël albumam. 5 hmm. ans 6 ans ci ginnaaw. parlons de Dip. Dip euh, dans son premier album il avait fait Sama jeunesse. écoute Sama jeunesse nga xool jamono ji lu xew. mais c'était pas des morceaux qui étaient mis en avant c'était ay poto lampe c'était ay band li bandi di nu parce que sénégalais yi ñooy jéggi rek jël benn morceau jël benn titre la nga ci. mais tey dañuy rafetlu parce que tey ils sont ils sont dañu ñëw dëggal seen bopp ba pare di ñëw ci manifestation yi c'est parce que beaucoup d'entre eux aussi ne sont plus jeunes comme à leur début màgg nañ ñu ngi jël conscience ñu ngi jël position et c'est ça le rap qui prétend faire du rap sans prendre position c'est Youssoupha qui le disait tu kii euh, tamit wax na ko dans le passé comment il s'appelle hmm, Lino bu Arsenic Kerry James tu vois Lino bu Arsenic donc li ñuy wax mooy dañ koy rafetlu et beaucoup d'entre eux on est en contact on discute. ok on on on conseille wàññi lii yokkal lii defal ni defal ne. Mhm. peut-être tey sa rôle ni ñu ko grand yi defee ak ñun yenn saa yi nga génnee benn affaire déglu woon ko benn grand mu ne la booy lii du yow bu doon sama nga dindi ci moo bi bu doon sa et cetera et c'est la même chose tu vois et mhm. c'est à saluer parce que quand leur peuple a eu besoin ils ont répondu présent. ok je crois que artistes loolu mooy rôle d'accord Simon ci lan la nekk jamono ji. jamono ji maa ngi ci Y'en a marre bi parce que temps yi maa ngi xëyaat bureau depuis les événements. da ngay liggéey yaa da ngay liggéey. waaw ci Y'en a marre bi. bon maa ngi ci waaw maa ngi ci quoi parce que il fut un temps j'étais plus dans mes business à moi bon maa ngi ci. et que parce que y a beaucoup de coordination à faire. Euh, ci Thiat qui est un peu alité bon mhm. deful plateau yi donc gars yi man la ñuy yónni plus ci plateau yi ak Aliou. Mhm. donc euh, voilà c'est ça aussi Y'en a marre maa ngi tamit j'ai fini un album. Mhm. qui doit sortir si benn format. Mhm. bon duñu waxagum format bi on va la surprise. <laughs> il faut il faut il faut mais y a y a un format bi mu war a génne dina dina bett ñu bëri. album bi laa la double album la wala benn. non tàmmaloon nga ñu double album aussi ah. non non benn album lay doon. ok benn album lay doon donc. mun nañ xam mois bi muy génn. xamuñu waroon na génn depuis décembre. ok mais euh, couvre-feu bi après événement yi ñëw tegu ci mais la on est en train de tourner parce qu'on doit tourner les vidéos d'abord il y a un concept bi ñu ko bëgg a génne et y a je suis sur un projet tamit qui s'appelle savoir-faire local mooy li ma sol nii di mettre en avant les mhm. les artisans yi nga xam ne euh, ils font du consommé local pour euh, valoriser un peu le consommé local di wax gars yi yooyu ñuy dem di ay Reebok Nike Adidas Euh, dàll yaa ngi nii euh, Baya moo ko def tu vois c'est du customise il peut récupérer tes chaussures customise ko donc euh, avec des tissus africains yére yi c'est la même chose bi manjon la gël tàppe la nekk pantalon bi c'est mais Simon yow daa mel yaa moom suñu émission bi di def sa sa publicité nu mu la neexee quoi. c'est maam Cheikh c'est maam maam Cheikh mu nekk <laughs> non da nga ma ne ci li ma nekk ma war la ci li ma nekk ci lii laa nekk. mais yaa ngi def sa pub gratuitement de. non ci non li du lii au contraire lii c'est citoyen <laughs> je crois que c'est ça c'est la voie équitable. oui effectivement lu gën a équitable mooy. au lieu que nit yi di dem di sol ay yére yu jóge ay Dubaï wala Chine ñuy sol ay yére yu gën a donc c' est dans le concept de Equivox ça c' est vrai <laughs> non grand bi ndax na ma ba fexe daal wër ma noom ma teg ma xel parce que ñoom euh, ils sont comme ça que ça soit moom que ça soit malal montre bi tamit montre bi tamit montre bi c' est <laughs> Matidi montre bi c' est Matidi <laughs> ah, après nga euh, jaar service commercial tout ça c' est dans la voie équitable après nga jaar service commercial il est comme ça moom malal daal bu ñëwee sa plateau dinañ fexe ba wër na ndomba jaay la affaire teg xel ak yooyu. mais c'est tout à fait <laughs> en tout cas kontaan nañ trop vraiment Simon euh, euh, nii lañ ko xamee depuis euh, bi ñu ko yàggee suivre ba tey gis ñu ngi fàttaliku son bi muy wax effectivement bi yàlla en 98 finalement dem nañ ba sax 2006 2007 gars yi jëloon ko mu wër réew mi trop. ak seen son boobu euh, wéegi benn wéegi coy mooma liquidé mooy ci biyaala bi muy wax noonu doon ci rendre hommage à Balla Gaye ci ginnaaw bi mu faatoo ci université ba tey gisat nañ si moo tamit euh, au devant de la scène que ça soit ci euh, wàllum euh, hip hop bi de façon générale mais aussi tam côté social vraiment ñu amoon mbégte dalal ko fii ngir gën a mun a waxtaan ak moom ñu ngi njort ni am ngeen a euh, mbégte ci découvrir ci li nga xamante ni moom la Simon nekk jamono ji ak tamit Y'en a marre bi ñu gisoon mu gënoon tàng tey mu xaw a loowu tuuti wàcc loolu yëpp gis nañ ko ci émission bi feeñ na ci waxtaan bi ñu ko si <laughs> jaajëfal moom Simon. laajal président Macky Sall <laughs> ñu ngi lay jaajëfal dernier mot bi. Uh-huh. waaw di leen remercier ci dalal bi. Mm-hmm. encore une fois di di wax euh, génération bu nekk dafa war a jël responsabilité am xam lan mooy mission accomplir ko wala trahir ko. ñu ko mm-hmm. Franck Fanon waxoon. Mm-hmm. donc euh, xàmmee xeexam. et je crois que aujourd'hui c'est aux jeunes vraiment de xàmmee seen xeex mais def ko dans les règles de l'art xam nga euh, gëstu. xam nga gëstu lire xam c'est très important et nekk ci entrepreneuriat bi bañ a topp école bi école bi école bi école bi mhm. mais nekk ci entrepreneuriat bi di ko ñefe mhm. euh, ci loolu la ñu nekk boo mu gisee may wax ci ay affaire de savoir faire local c'est parce que j'ai toujours été dans ça mhm. bi may ñëw donc euh, pour dire juste que entrepreneuriat ñefe leen ñefe leen ñefe leen di leen remercier ci dalal bi di massawu encore ñëpp ñu ñàkk seen ay doom seen ay rakk seen ay frère ci euh, xeex bi et di wax suñu gouvernants yi tamit il faut que ñuy gën a respecter seen peuple il faut que ñuy gën a mën a di liir entre les lignes il faut ñu gën a comprendre la la la la jeunesse aussi mm-hmm. donc c'est très important sinon genre yi nii duñu mës a di si di si di on demande aussi la libération de tous les prisonniers politiques ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abass fal ñoom euh, Birame Souleye ñoom Clédor ñoom Assane Diouf et les moins connus waa les anonymes ñi nga xam ne ñu ngi ci jour bi on demande vraiment leur libération et di wax ne le peuple bi continuer le combat parce que le combat n'est pas fini. d'accord merci beaucoup mu nekkoon euh, Simon Kouka moom lañ doon dalal tey si suñu émission ganu Equivox di am mbégte di remercier aussi itam suñu équipe technique bi yëpp di leen jox daje fii ak fan yu néew incha allah ci beneen numéro.